ma ñëw su may jeexal ñëw ak yéen ci seen xarit euh, kàccoor bi tey dafa ñëw na les mains sales ñi seen loxo tilim ñi seen loxo tilim Sénégal gii il na blaguent assurément pas et prennent très au sérieux leur mission de destruction massive kàccoor bi tey day wax ak ñi nga xam ne ñoo jógte ba Bassirou Diomaye jógee ba tey ji ak Ousmane Sonko ñu nekk en mission commandé jël seen xalima di bind lu bon yor seen làmmiñ di wax lu bon ñooñu nag la kàccoor bi di wax ak tey moo tax mu ne ils na blaguent assurément pas et prennent très sérieux leur mission de destruction massive mu ne ñi kafu kafuñu reewuñu de ñi daal mission bi ñu leen sant mooy nanga fexe ba yàq Bassirou Diomaye na nga fekk ba yàq Ousmane Sonko campagne u Diomaye président na nga ko yàq ñoom da lan lu nu man ñu ngi koy def jamono yi la consiste à tailler en pièces le discours de l'autre mu ne nag nekkeewuñ fi ñooñu nga xam ne seen loxo dafa salte ñu tilim ay nit ñu tilim lañ lu dul jéem a yàq discours kooku ñuy bañ a tudd c'est-à-dire le candidat soutenu par celui qui les empêche de dormir depuis 2021 mooy mu ne Bassirou jamaay mi nga xam ne moom la ki leen teree nelaw depuis deux mille vingt et un di Ousmane Sonko di jàppale moom dala ne ala mukk faaw ñu yàq deram faaw ñu tilimal ko faaw ñu sosal ko faaw ñu duudal ko il s'agit pour eux de rendre insignifiant le discours de ce candidat qu'ils viennent juste de sortir de prison après que leur cheval à eux a commencé sa campagne électorale député lustre d'abord sous la casquette de premier ministre puis celle de candidat tout mu ne ñoom de mission bi leen sant mooy ñu fexe ba yàq discours Bassirou Diomaye di ci wax lu ne te nag am na ñoo xam ne ay ankagulewu lañ de dañuy wax mais duñ dara ñoom ñëpp loolu mooy seen mission te ndeysaan Bassirou mi ngi doog a commencé campagne de nee na ñoom de seen seen candidat tàmbali na compa campagne ba mu nekkee premier ministre ba tey jii mi ngi campagne Bassiroo ngi doog a génn ñoom ñëpp ñu jógte nag nekk en mission commandé c'est leur survie qui en jeu et ils donc pas de main morte mu ne nag waaye da leen di comprendre de ñoom bu nguur gi changé tàbbi ci yeneen loxo xam nañ dee nañ wecc duñ ti dara ci réew mi moo taxit nag lu ñu wax ci lu ñaaw lu ñu bind ci lu ñaaw xeeb ko Ils ont fait monter en première ligne leur armée de primitifs en service commandé tirant à l'aveuglette mun a gis leen xool leen ci journaux yeeg ak ci fu baree bare bi di nga gis nee na seen bindkat yi fu mu gën a ñaawee ña ngi ko fay tibbee di ko samp di bind dañuy bind ba bind yëfu dof wax waxi dof ndax gëlëm tiit jaaxle nekk mission commandée Dans leur frénésie de faire mal ou à toucher là où ça pourrait faire mal il arrive qu'ils ratent leur cible mu ne dama leen yërëm sax man kàccoor bi ndax des fois da ngay liir xam ne waxi dof dëgg lañu bind waxit dof waxi ku katakay ne ànd ak farimata bandax la ñuy bind di wax. Ce week après la sortie de prison de leur cauchemar ils n'ont pas chômé et ont envoyé les médias et les réseaux sociaux mu bi ba Ousmane génnee ak Bassirou Diomaye. ne la wuñ de luñ nekkee woon way jomaay way sonko way jomaay way sonko loolu rek lañ nekkee woon ah ba pare nag bañ xawee xemiliku ñu daw jëli këyit bind commencé bind commencé wax wax ju ñaaw dugg ci réseaux sociaux yi di tàmbali ratatatatatatat dof nag te ñoom xam nga bëy bu bëla lañ war a jënd pour ndëppal leen Et du coup, on a vu des gens qui de tout le temps, de tout temps, revendiqué leur indépendance, venir se salir les mais et patauger dans des ba kàccoor bi ne lu ma ci gën a réelu nag moo di dafa am ñoo xam ne dañ leen taxaw de di wax ne ñoom dañoo am indépendance bokkuñu ci affaire yooyu hoo kàccoor bi ne wuu feeñ ngeen yéen ci seen loxo yi da ngeen ko dugal ci ay ginnaaw kër seen loxo yi da ngeen ko dugal ci ay ginnaaw kër laa wax. waaye rek wanag miin na sàgganu wanag miin na sàgganu l'objectif était d'ébranler celui qui na boxe pas la même catégorie que leur champion mais qui perturbe cependant leur sommeil mu ne rek li ci jublu woon moo du yëngal ki nga xam ne <laughs> ñoom ki ñu yaakaar mu seen candidat di Amadou Ba xam na ko bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax ndax moom moo leen tere nelaw ñaata at waa ñuy jëflanteeg Ousmane <laughs> Ousmane fa mu nekkoon bougé wu fa de <laughs> il ne rechigne pas à user d'attaque en dessous de la ceinture mu ne jombalewuñ seen bopp sax wax ju ñaaw le sale boulot est mené par des primitifs qui passent à la moulinette celui qui semble être le seul capable de faire mordre la poussière à leur champion dans cette course où 19 candidats sont alignés sur la ligne de départ mooy defkatu ñaawteef yooyu ne dañuy bind yaay di jaay nàndite benn kàndidaa rek lañ song soo xoolee muy jomaay ci 19 yëpp taxaw benn kàndidaa lañ songu ak kat Ousmane Sonko rek lañ songu soo xoolee duñ wax beneen candidat kon xam nañ bu baax lu xew Dans leur ingrate entreprise, ils se font un malin plaisir de déstructurer le discours de l'ennemi plus que l'adversaire, lui faisant dire le contraire de ce qu'il a soutenu ou carrément ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent entendre. mu ne seen bopp def kotu ñaaw kéef yooyu nga xam ne dañoo dof katakay ne ànd ak ay farimata bandax mu ne ñooñu jombalewul seen bopp jël discours Bassirou Diomaye wax ci lu ci bokkul yokk ci sos ci nar ci wala ñu ñu déggee jombalewuñ seen bopp loolu ak jom indisposant leur compatriotes par leur tentative de faire prendre les vessies pour des lanternes mu ne sénégalais yi ñuy wax sax dañoo dem ba jéppi leen ndax sénégalais yi dañoo dem ba gis ne ñii dañuy wax lii nii la te xam nañ dëgg gi ñëpp xam nañ dëgg bi mu ne waaye dafa am njëg nag il faut bien qu'ils vivent les pauvres dañoo am njëg comme boo demee ci euh, daral ba di jënd xar da ngay làmb ñoom ñëpp dañoo am njëg te leen di jënd te loolu lañu am pour dund ils ne veulent pas perdre des privilèges ou leurs moyens de subsistance subsistance koor gee muy def effet nag quoi <laughs> ma jegeen ñeeg faaleen yi reede ah koor gee def effet voilà ils ne veulent pas perdre des privilèges ou leurs moyens de subsistance voilà mu ne waaw ñàkk jom yooyu nee na c'est normal boqal bi <coughs> ak buuñaa bi faw ñu doxalee noonu parce que loolu ma duñu dund de Dans leur tentative maladroite de tout destituer, il leur arrive de se perdre et être déserté par l'intellect pour ne prononcer que des évidences. mu ne ndeysaan boo leen di liir danga leen di sax jéppi da ngay wax ne ki bind lii wala ko wax lii est-ce que nite na.